nelaw borom tuuba day bindu guddi waaw du nelaw bu jàmm ñi ñëpp ne xelaw mu dem fa pays bu ni salaw bu bët setee mu dunu wax borom tuuba yow fa nga nekk yàllaa fa nekk kenn du fa nekk ku dul yow ak moom naa samay ci buumu cofeel ku gis saa nee ko maa ngi nawar sëriñ Bamba laa wax ni mooy saa boroom ku dul moom bu yéegee ci man def di kër borom Tuuba dadaa ñadd ngooñum sëbam naa am li tax ku dul moom du def saa gawar sëriñ Bamba yaa saytu mbooleem lu baax ku ñuy naw ci am ngooñ sa saarit la yor sëriñ bamba yaa saytu mbooleem lu baax ku ñuy naw ci am ngooñ sa la yor sëriñ bamba yaa moom ku yoru di wax ba moom maale